parce que selon que équipe bi gagné au pas dafa am lu muy indi c'est ça la vérité aussi parce que dañu nekk ci contexte politique boo xam dañu jógee ci euh, ci élection élection bi am nu mu bindoo euh, ñu nekk ci configuration boo xam ne aussi configuration xëccoo la ak xeex équipe bi nag bu gagné objectivement ci bilan Macky Sall lay bokk <laughs> parce que mooy président de la République tu donc boo dee politicien bu politicien bu gàtt xel mën nga jàpp ni équipe bi gagné nii arrangé wu la. parce que objectivement euh, euh, avec tout ce qui s'est passé au Sénégal depuis mars ak tension bi ak euh, Covid bi ak situation économique bi euh, bu bu bu ñu gañee coupe bi dina am lu bari lu mu soppi ci réew mi et c'est bien hein? franchement c'est parce que bu ñu gañee coupe bi nit ñi dinañ kontaan puis nit ñi dinañ fàtte xeex yi dina nekk suñu ginnaaw au moins pendant un instant xam nga lim la. loolu boo dee boo dee boo dee politicien da la mën na la gêner boo dee homme politique nag du la gêner parce que boo dee homme politique da ngay jël réew mi teg ko ci kanamu sa intéret avant sa intérêt boo dee politicien nag sa intéret rek ngay jël teg ko avant réew mi mais man daal li ma jàpp mooy ne serait-ce que ñu ni en deux mille vingt deux Sénégal moo gagné Coupe d'Afrique kooku c'est un fait d'histoire boo xam ni ak foo mën a bokk. dafa la war a neex. voilà voilà parce que mosuñoo gagné coupe bi te ku ne xam na ni tey football euh, dafa tourisme la géopolitique la football lépp la Brésil par exemple bu ñu xamee ci àdduna bi jox ko cër football moo tax tu comprends donc tey Sénégal nga xam ni depuis des années fu ñu waxee gars yi nii on a la meilleure équipe heure bu ñu demee Coupe d'Afrique man boog li may dégg ci reporter yi vraiment Sénégal a la meilleure équipe. yàlla na yàlla def ñu gagné coupe bi. au moins ne serait-ce pour inscrire Sénégal ci palmarès bi. Mm. xam nga loolu rek déjà même bu même bu yemoon foofu rek neex na. Mm. te loolu aussi le pays arabe surtout le contexte bii bu ñëwee dina am lu bari loo xam dina ko soppi. dina dina am lu bari loo xam dina ko soppi ci politique maanaam koom-koom bi ni mu méttee dina am lu mu ci woyofal. Euh, même ci ambiance réew mi dina am lu mu ci lu ci indi lu positif te loolu lu baax la. kon li euh, Cheikh Cheikh wax weesu na football kese ak sport.